waxoon na gitam ci boppam lan moo ko waral muy ñaaroo ga muy sàcc muy naan sàngara mooy tuuma kenn ci ñaaroo waxoon na nag day wax nag bu mu koy def mu koy defee moom jotam gi mu ko waxaale itam ci buntu bi ay mbiri mbir yoo xam ne amuñu ko laalante mu bëgg leen a wax nag nga xam leen ku ñu jotam jotam ci ay yar dañuy seet yar bu dikku doomu nga xàcc itam ci xàcc xàcc bu diggu doomu di ko door nag ci gannaaw gaag mbagg ya waaye du weesu gannaaw gaag mbagg ya jëriñ ñu ko woo itam bu fekkee xam ne ne moom du daw lépp loo xam ne nar naa tee boo war a metti dem sol ko dañ koy summi te fexe ba awra dana feeñ jigéen nag xam nga war a yëpp daa awra dañ koy suturaal bu baax te fexe ba dañ koy suturaale bañ a tee yar waa metti moom bu fekkee lam soo suturaal na ko te bu tee yar waa metti rek kenn du ko summi comme nar a caw caawar dana wut lu mel ne pañe wala ab yat def ci ab doom tooral ko mu toog nag moom moomee ñuy caw ay yar ca kaw yat ba mbaa kaw pañe ba ca doom bu tooy boobu nga xam ne boo la defee rek doo tax mu toog ndox mooy li ñuy wax sow loolu daa sutura ci moom ndax duñ mën a xam ba xam dafa toog ndox wala tool gan toolaloon doom ba mu toog muy am ndox ndax ndox ma rek loola dafa toog ndox daal loolu sutura boo ci mën a xam dara baatub xuffatun xuffa daañu ko wax ak yet daañu ko wax pañe ba tey mel ne ne lu la ab këll ba tey waaye dañoo xamoon loola rek fekkoon ne léegi yoon a ngi dox dañuy jotan ma des naa wut leneen lu mën a def ab doom rek tooyal ko dal ko ci toogloo duñu sart ne faaw muy pañe wala muy ab yecc saa yu nit jàddee rek def lu mu wërta def te loolee sharia rëddu ci lu wér a wér ni ki amul géttan amul kafaara alamaan buñ ko cay defloo mel ne ñu toll ci bëccëgu ramadaan ñu gis jullit boo xam ne kàllaf la amul ngànt muy lekk ñu koy gis nëbbu ca dara laq-laq lu ca dara wala muy yéexe julli ba waxtoo jàll te di ko tey wala muy jaay di ca def loo xam ne bokk ca di ko naxe nit ñi wala mu xas kenn saaga ko mbaamu dóor ko lépp loo xam ne daal nit jàdd na ko yoon te téere bi rëddu ci dara dara àttekat ba mooy xool la ci yell mu yare ko noona ndax mu bàyyi ko la mu gis rek ba defee ne yell na doonte ëpp ni sax gétan du tee mën na ko ko def waaye rek na fekk mu jàpp ne loola yell na ca waaye nag yara boobu àttekatu jullit ba mbaa ka ko wuutu rek moo koy sañ a def doo sañ a romb rek kuy def loo xam ne aay na nga jekki-jekki bëgg koo faj da ngay fexe ba yëgal ko yoon yoon faj ko waaye bul ko jéem a faj attikat bi rek moo sañ a def yara boobu wala nga koy wutu mbaa koo xam ne moo ko ca may ndigal boo weesoo attikat beeg kam ca may ndigal moom ña sañ a jekki-jekki yar mooy ñii ñuy bëgg a wax waajur sañ naa yar doomam ja nga xam ne ndaw la kàll feegut kay jàngale itam sañ naa yar ka muy jàngal jamono yi jaam amee itam sang ba sañ naa yar jaam ba jëkkërit sañ naa yar jabar ja ku man di yar nag moo xam àttekat bala mbaa ko ko wóotu ak ñi nga tudd du sañ a móolu ak rëbbu ka muy yar mbaa mu di ko xas di ko saaga mbaa muy xas ndeyam mbaa baayam di ko ku mënti yar daal dañuy seet na mu yelle mu yare noona waaye na moytu nag ñaawal deru yaramu kooka wala dam ab yaxam mbaa dóor ko ca kanam ga mbaa di ko saaga ndey mbaa bàyyi ak yu demee noonu ka muy yar day seet la mu wax bañ ne ak jàdd yoon la mbaa la mu def bañ ne ak jàdd yoon la lum seet ne moo ci yell rek mu yare ko na bu fekkee yedd rek doy na ca baax na bu fekkee da koy dóor mbaa da koy tëj kaso ba tey baax na bu ko dee dàq génne ko foofa ndax jàpp na laa ci yàlla ba tey baax na lépp loo xam ne daal shariha yaxalu ca lañ war a def ka jàdd yoon attika ba ci boppam mooy seet la nga xamee ne moo ci yàlla ci ñu yare ko kooka mu yare ko ko ba bu ëllëgee du ko defati donte sax lam seet ba jàpp ne moo ci yàlla ëpp nu gita nit na digle loola ñu def ko loola àttekat boobu nag la mu seet ba jàpp ne noonu la ko war a yare te jàpp na it ne du tax ba kanam des ca boo ko defee ba kanam des ca itam du tax ñu topp ko ca dara dañu xam ne dogal baa rek muy benn ñaareel bi nag mooy lam seet ne moom la ko war a yare ma ngay sikki sàkk ci bu ko yaree noona bakkanam dana ca des wala du ca des kooku moom bu ko ko defee te bakkanam des ca du ñu fay ci moom sax rey ko waaye dañ koy fayloo diyey bakkan ba nee nañu mook fam ba mbokk muy giir ga mbokk ñoo koy bokk fay bi ci mujj nag muy ñetteel bi mooy mu yare ko noo xam ne ba mu koy defit moo ko tayoon xamoon na ne bakkanam da cay des mbaa jortoon na bokk ne bakkanam ci lay des kooku moom dañuy fayu ci moom ci boppam rey ko na mu reyee kooka bu nit waxee ne docteur la bay faj ndigitee moom daa ñeme rek waaye mënta faj mbaa am na lu mu ci ëmbale loo xam ne mën naa rey nit mu daal faj kenn kooka faatu ca paj ma dañuy jàpp ne kon moo gàddu bakkan ba dañuy fayu ci moom jàpp ne moo ko rey te tey ko ñooye moo su fekkee nag xamoon na faj dëgg-dëgg laata muy faj kooku itam amoon na ci ndigal luy tax mu sañ koo faj ba mu koy faj nag dafa gàttañ lu ca nam ko fajee de moom xam ngaa nga fa waaye nag gàttañ lu rek moo ko ca dal ba la dal kookee dal ko kon duñ fayu ci moom rey bakkanam waaye dañ koy wax ne ko fayal diye ji ba tey it bu fekkee ne gone dane ko faj ma rek mu daal di koy faj wala ab jaam ne ko faj ma rek mu daal koy faj te xam nga ne ñooñu seen digal ak seenu ñàkk digle ñoo yemoo gone kilifaam moo war a joxe ndigal ci ñu faj ko ab jaam ab sangam moo war a joxe ndigal ci ñu faj ko kon nag boo gone ne faj ma mbaa ab jaam ne ko faj ma mu daal di koy topp ca loola faj ko doonte gàttalu ci itam lu ci xew rek moo ko gàddu ndax dañuy jàpp ne moo ko tey daa waroon a xaar ba am ci ndigal kon mën ngaa takk ne docteur bi moom bu fekkee ne xam-xamu fajam dara manqué wu ca kam yi faj itam am na ci ndigal lu wér lu jaadu door koo faj faje na ko itam na nga xam ne moom la ko war a faje dogal baa dikk rek koo ko faatu loolu moom kenn du ko ca topp dara dañ ko cay ñaanal tuyaaba waaye nag bu ñu day faj te xam-xamam matewu ko wala xam-xam mate na ko waaye da caa sàggan gàttañ lu ca wala mu jekki-jekki faj koo xam ne amu ca ndigal mbaa ndigal lam ca am moom moog ñàkk ndigal ñooye moo yooyu yëpp moom dañuy jàpp ne moo tooñ dal jàpp ne moo garanté docteur bi noonu la ci borom sara bi wax muy sara bi tudd siraaju salik nga dégg nag ñu waxal la ni ko ak dusuux yi andee ci saraab muxtasar xalil rahmatullahi alayhi moom dafa wax ne ki nga xamee ni daa wax ne mën naa faj te fekk na am na lu umpale ca paj ma loo xam ne mën naa rey nit kooku bu fajee kenn rey ko moo gàddu bakkan ba ci kaw na fay diya ndax dañuy jàpp ne ba mu koy faj jubluwu ko woon a rey xëy na daa jàppoon ne rek xam na te lii mën na koo faj waaye bu xamoon ne lii da koy rey du ko ko def loolaay tax duñu fayu ci moom rey ko su fekkee nag xam na paj ma waaye da caa gàttañ lu niki mu war a dindi bañ bi bàyyi ko dindi beneen wala garab gañ ko waroon a jox mu jox ko geneen ndax jàpp ne gii la fekk na daa juum yooyu yëpp neen àtte bi benn la mooy lu ci xew rek muy bakkan muy leneen moo ko gàdduwaay nag kenn du fayu ci moom te lañ cay fay bu fekkee mat na ceerub diya moo jirgam bokkal ñooy bokk fay ko duñ ko fayloo moom dong bu fekkee nag matul ceerub diya nag moom rek moo koy fay bu fekkee nag moom xam na paj dëgg-dëgg defe it nam war a defee gàttal wu ca ci genn wet dogal baa dikk rek bakkan gaañu ca mbaa ak cër laatu ca kenn du ko ca topp dara dañuy xam ne dogal baa rek su ngelaw li baree mu taal aw sawara foo xam ne dafa jege dëkkuwaay yi sawara woowee nag ngelaw li ëf ko ba mu lakk néeg mbaa kër mbaa dëkk kon dañuy jàpp ne ndegam moom fa mu taaloon dafa jege dëkkuwaay yi moom mi taal moo gàddu loolu lépp muy bakkan muy alal lu dee ca lakk ga rek moom moo ko gàddu su fekkee nag fa mu taaloon moom sori woon na dëkkuwaay yi kenn jàpputoon ne sawaraw mën naa ñëw ba lakk lam lakk xam ne kon dogal baa ñëw rek waaye loolu moom yaakaaruñ ko woon kon kenn du ko ca topp dara dañu xam ne rek dogal baa ku màtt baaraamu nit kookee ñu màtt baaraamum xëcc bëñ daldi rot ci gémmiñu waaja mbaa lu ëpp benn bëñ ni ñu waxe moom mooy kookee xëcc baaraam ba ba bëñ ba rot mbaa lépp benn bëñ mooy fay lañ war a fay ca bañ ya rot dafa mel ni nag bu fekkoon ne ki ko màtt moom moo ko tooñ kee itam xëcc baaraamam bañ ya rot du ca war a fay dara ñu addis ba waxi sax dañoo jàpp ne xëy na Malik da ko gisut waaye addis bi moom ka màtt la teg tooñaange ga moom la yedd inna rajulan hadda axar fa nasaa almadudu yada fa xalaxa sinna fa qaala alayhi salaatu wasalaam ayhaddu ahadukum axaahu kama yahaddu alfaxlu laa diyata la benn waay dafa màtt keneen kañu màtt xëcc loxoom bañ ba buddiku yonent bi ne kenn ci yéen day màtt moroom ni nga xam ne moom la kuy mel kuy gëléem di màtte dal ne ki bañam rot kenn du ko ci fay dara kenn amee lu ko diya am nañu ne kon ni waa Malik waxee ci loolu manees na koo déggee nii te mooy su fekkee ne ku xëcc loxo ba ak metti taxutoon moo ko ci jublu woon rek bëgg a dindi bañu waaja kon dana fay lañ war a fay ca bañ ba rot mbaa bañ ya rot waaye bu fekkee mat-mat baa metti mu xëcc ci baaraamam rek mënu ko woon a ñàkk xëcc kon bañ ba rot te itam dara du ko ca war ku jiital daaba topp ca wala mu ne ko womat daaba ja topp ci moom mbaa mu war ca kaw lépp lu daaba ja yàq mbaa mu rey ko moo xam ci tànk ya la ko yàqi mbaa ca la ko reye mbaa lu mat moom mi nga xamee ne moo ko jiitaloon mbaa moo ko waroon mbaa moo ko nuyoo mat moom moo war a fay bu ñett ñëpp tase woon nag nga xam ne kee da caa topp kee di ko woo mat kee war ca lu daaba ca yàq mbaa mu gaañ ko nee nañ da ca topp ak karul womat rek ñooy gàddu waaye ka war ca kaw moom moo bagage buñ teg ci kaw rek ñoo yemoo lu may nag nga xam ne moom mi war ci kaw mënoon naa fang loolee daaba ji def ba du am te defu ko kon moom day bokk ci fay ga lépp loo xam ne daaba da ko yàq wala mu gaañ ko mbaa mu rey ko doomi aadama defu ca dara dara sawu lu ca te mëntoon a tee mu am dañuy jàpp ne kon dara waru ca ka loolu dal na xam ne rek dogal baa ñëw hadis ba nee na fi'lul hajmaa i jubaar ay hadar bahima lum def ak neen la mooy kenn du ca topp kenn dara ne ko da nga koy fay mbaa dara lu may nag daaba joojee boroom xam na ko ci matte mbaa wéqe mu yeew ko nag ci aw yoon mbaa rek foofa ca marché ba ci béréb boo xam ne mën na faa matte mën na faa wéqe jotu koo jatan jotu koo sol gafaka mbaa def ca gimiñ nga luy te mën a matt yooyu jamono moom lu wéq mbaa matt ko rek moom mooy fay ndax moom mu sàggan rek ruurum guddi muy daaba yi muy jur gi lu ñu ruur yàq ko te muy ci guddi boroom jur ga wala boroom daaba ja moo war a fay ndax guddi moom nit ñi dañuy nelaw mënuñoo sàmm seen yëf bu dee ruurum bëccëg moom yàqalu bëccëg daañu ko wax léegi waaye ruurum guddi moom jàppal ne boroom jur ga wala boroom daaba ja moo war a fay lu may nag dafa jëleen jur ga mbaa daaba ya dugal leen ci kaaraange loo xam ne maanaam béréb bu dëgëra dëgër bu làqoo làqu fatt côté yépp ba jàppoo nañ ne mënuñoo jaar fenn ba génn bay yàqal kenn mbaaloor kenn ci dogalub yàlla nag am ni def ba rëcc rek génn yàq mbaa ñu gaañ dañuy jàpp ne kon seen boroom du fay dara ndax loolu itam dogal baa rek ruur moo xam ne bëccëg la du guddi su fekkee ne ab sàmm néew ca yoon te it fañ wëttaloon jur ga sori na soriwaay boo xam ne xel xalaatutoon ne jur ga mën na faa bàyyi ko ñëw yàq tool ya kon bu ruur ma amee boroom jur ga di su ko wax dara dañuy xam ne dogal baax waaye nag bu fekkee ab sàmm nga ca woon moom mu mën a téye jur ga te téyewu leen moom mooy fay su fekkee ne it fañ doon sàmme daa jege tool yi it la muy doon doon bëccëg boroom jur gi mooy fay su fekkoon ne fa mu doon sàmme mbaa fa wëtaloon jur ga daa sori lool ba nga xamee ne daal moom xel xalaat doon ne mën nañ faa bàyyi ko di ruur benn toolub jàmbur mbaa di yàq genn kërug jàmbur teewul nag loola am dañu jàpp ne kon dogal baa des ko fayloo dara dara kon ci takk-takk mën nga ne bu ñu xësee xam ne jur googee jurug ruur la maanaam jur ga xas na nekk ruurkat kon moom xasee ruur rek moo xam guddi la moo xam bëccëg la faaw boroom fay lu may nag ab sàmm yore woon leen man leen a téye ba duñu ruur te téyewu leen kooku de moom kon sàmm ba mooy fay bu fekkee ne it jur ga xam nga leen xam ci ak mën a ruur tax na boroom yeewoon leen yeew bu dëgër a dëgër mbaa mu tëj leen tëj bu dëgër a dëgër teew nañu rëcc yàq moo xam ci guddi la moo xam ci bëccëg la koy dañu xam ne moom dogal baa rek l'islam day jàpp ne julli bu ne mook mbokkum julitam benn lañu fu mu gisee alal mbaa bakkan mu nar a laatu mu mën ca dara seetaan ko rek ba loola laatu bu dee bakkan baa mu dee mbaa alal ja sànku bu dee bakkan ba moo war a fay gàddu bakkan bu dee alal jaayit moom mi ko seetaan ba mu laatu moo war a fay su fekkee nag def na ca lam man dogal baa ñëw rek moom kenn du ko ca topp dara mel ni mu gis nit wala alal joo xam ne mu ngay bëgg a daanu ci am ndox wala sawara di ko bëgg a lakk te mën ca dara bu seetaanee defu ca la ca war rek moo gàddu bu borom doole jëloon alali jaambur alali mbokkum julitam mu mën caa wax ba koo ko jot ca te defu ko ba tey day mel ne kon moo gàddu alal jooja ba tey mel ne bu gisoon gone mu raam jëm ci sawara wala mu jëm ci kàmbu wala mu gis gumba muy dox di bëgg a daanu ci kàmbu mbaa am sawara yu mel noonu bu gëyul rek xettali gone ga mbaa gumba ga te mënan na ko rek daal di gàddu bakkan ba ku gis nit mu mar bay bëgg a dee mbaa mu xiif bay bëgg a dee moom nag yor na dara ci lekk mbaa ci naan te faj na lorom ba noppi yoon day waral ci moom ne ko des ndox wi nga yore mbaa desu ñam wi jox ko kii nga xam ne moo loru ba bu lekkul mbaa bu naanul dee ndax yow faj nga sa lor su deful loolu nag su koo koy dee rek ñu jàpp ne moo gàddu bakkan ba bu kooka amee alal jum ko mën a fayee faaw dañ koy wax ne ko fay ko lim la jox ci lekk mbaa naan fay ko njëg gi su fekkee ne kooka daa ñàkk ba amutoon dara nag kon moom kenn du ko fayloo dara moom mi joxe lam joxe da ci séentu tuyaabu yàlla rek waaye nagam kee amut lu mu fay moom kenn du ko forcé ci amel ko bor bi naa bu ëllëgee na ko ko fay ku fekk ab sàcc mbaa borom doole mu yoree fi jàmbur mu fexe ba nangu loolee waaye nag daa am lu mu ci joxe door caa jot jot ca ci neen rek daa am lu mu ci joxe ba tax ñu jox ko alali jàmbur joojee kon na ko jox boroom waaye faaw boroom da koy delloo lam ci joxe woon ba jot ca lu may nag moom ba mu cay joxe dara bëgg caa jotit te caa jubluwoon bu ci jotee téye ko bañ koy jox boroom léegi nag ba mu ci jotee ñu gis ko topp ko ci yoon bu mënu koo ñàkk joxe mbaa daal rus na ba wëlbatiku jox ko borom waaye ci naka jekk moom ba mu cay fay dara ngir jot ca it da ko bëggoon a téye su boobaa kat borom da koy jël ba noppi du ca joxe dara wala mu ci joxe woon kenn du ko ko delloo